comme ni ñu koy defee saa su nekk rek noonu lañ ko defaatee tey ñëw Guédiawaye seet si euh, ki nga xamante ne mooy Sa Thiès naanaan sama kii mënoon jàmmaarloo ki nga xamante ne mooy Reug Reug démb ci biir enceinte bi nag jaxasoo am na gars yi nee nañ quatre appuis ñu continuer action li tax ñu continuer action nag Sa Thiès dinañu ko wax tungu ne du teew ñuy nataal ci biir làmb ji quatre am na ba tax dem di zibilé xaar bi ñu woowaat bu moom nag li tax mu bàyyi ba dem dinañu ko wax ak nan la ko dundee démb ci guddi nan la dundee ak nee naa leen kenn du kër Balla Gaye bi kenn du kër waa kër euh, Double Less yàlla na ko yàlla yërëm nee naa xew rek ñoom dañuy yombal dëgg neexu Wolof Njaay nee na gërëmul nit doo gërëm yàlla te ku ko def ku ko wax la bëgg man ko wax te daw ma ci dara looloo am mbër euh, maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi dellu ziar sama caay laal caabi waaw maa ngi lay nuyu di la masawu. maa ngi lay ziar ba eh, Birame sama dama ko yóbbu. ay Birame baalal ñu. déedéet. baal ma xaaral ma xaaral pare. salaamaaleykum maa ngi jégalu baax a baax maa ngi euh, santaat yàlla baax a baax di julli ci di sant suñu ñaari waaju ci kàddu bi ñu génn àdduna ñëpp yàlla na yàlla yërëm xaar laa jëm ñu tëdd hôpital aussi tamit yàlla yërëm yëkkati leen di ñaan fi jàmm yàgg di nuyu njabootu suñu tubaab bi yëpp teg ko ci loxo sama sëriñ Cheikh Abdou Karim Fallou di gërëm aussi trois trois woon fa trois woon aussi maa ngi ak waa Kaolack jabatu Baay Ñas yëpp yokkatuma la jawul Limam Yoof teg ko ci loxo Seydina aussi maa ngi nuyu Sénégal monde entier nuyu samay kilifa samay xarit sama am jàmm macha allah damay faral di wax nee naa bu ngeen bëree ba pare presse bi dañuy ñëw ku bëgg a fekk de ah. da suñu image toolu tey bokk ngeen ci ko fa yóbbu mais ñun tamit ñoo tax ngeen di fayal kon yaakaar naa xaalis si xaalis la kon yaakaar naa kenn mënul dem bàyyi sa morom te jàmm lañ mën a seq te ñoo mën a liggéey ah en fait presque moom ka mun ko gënee ci laaw. dëgg la yàlla na seen jàmm yàlla ayca ñu ñëw ci wàccaay bi diggante Sa Thiès Reug Reug wax ji bëri ba démb mu jeex wàccaay bi noo ko doon wàcc. neuf mois la neuf mois la combat bi la diir ah sama ñaari combat. kon yaakaar naa ne amoon problème mu préparation moom ndax man moom yàlla ma ñaale na ma su may dem quatre heures du matin am naa kilifa su ma jógee dem olympique ba quatre heures du matin ma naan papi mooy suma kilifa moom may entraîné foofu di ko gërëm bu baax a baax a baax su ma fi jógee damay ñëw olympique ci ji dëgg yàlla ku na xamee nañ ma maa ngi leen di sant bu baax a baax waa olympique yëpp nag waxatuma la nag waxatuma hmm. la ak euh, kii bi euh, wàllu box bi xaarim boxeur maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm aussi di gërëm ki nga xamante ni mooy ñoom waa écurie wàll ba Balla Gaye yëpp mais ren moom dama naan maa ngi gërëm waa écurie géejawaay gi yëpp ah, ñëpp si jàpp bër ku lim na kenn ku ci nekk loo am ci pexe def nga ko loo ci doole weccoo nga ko ci xam-xam weccoo nga ko man sax yëkkati nañ ko jox ma Malick Gakou aussi gërëm baax a baax coow li lan moo taxoon mu wala sa diggante ñaari xale yi doon dajale wala dafa amoon benn li nga xamante ne a am coono yi bëri. coono du dara parce que xëy na grand corps du petit boo xoolee moo ëpp lu am boo xoolee ci bi grand

ay. Euh, sànq na grand contre côté. dama ne xëy na lu tax suñu combat tey mu gën a am euh, impact mel ni. ñaari mbëri ñoo toll foofu en plus. Euh, boo xoolee saison bi tey Franc contre Petit Mosso ñun ñoo ci gën a am combat yi mag ci ka ñaari naataango. yaa ngi xaalis da nga bëggoon prouvé daa am foo dem lan moo tax nga déglu ñun ñëppoon nañ dox combat bi combat bi nga bëri ji fekk Moussa dem bëri ji fekk ki euh, guy tey lamb bi dox ba ngeen dajewaat daje bi lan. dara parce que moom laa bañ ma jógee dañ maa fay lu ko jar wala ñu bëri d'accord léegi dañuy ñëw ci combat bi ci enceinte bi coow li bëri moment bi ngay dàkkee booy lan moo na yàqu. waaw li mu koy yàqu ma ci doon raam sa dinaa bëri combat bi blessure laa ci man su ma dana métti yàlla xam na ko loolu dama leen jaabante mais daal gëm lu wóor ma gëmoon ak lu wérte wóor mooy làmb ji moom mënu ma jàpp dina bëri coow nag jig yàlla lan moo taxoon nga dàq ji booy dàq ma ko dafa am yoo xam ne dafa jekk ma dafa ma këpp suuf ah suuf la la suuf te yàlla xam ne sama bët bi la duggoon waaw donc hmm. moment bi ngay dàq ji boobu rek rek mu ngi taxaw di ko mais gis ne bu ko laal boobu da yaa ah lu ma ko mën léegi mu tëdd ne du ma bëri nag kan moo ko dóor du man sa diggante ak Reug Reug bi arbitre bi ah, man li ma jàppoon ne moom da koy andi sax loolu laa gisul ndax ma jàppoon dina jeexaat ak moom xam raag da ngaa foog raag lay indi. damaa bëggoon man xam naa ne xeex da waxoon naa leen. lan moo tax nga xeex. lan moo xeex. est am na possibilité pour xeex. boo ko ñemee doo ko dara ma loolu laa gëm. kon yow da nga jàpp ne yaa ko mën. wala yàlla dogal dem. mais moom day wax ne dix combats mu daal la jël dix jël yu bokk. bu néew fi taxawee bu néew fi taxawee mu moo ma jaaxal. waaw waxi mbër la. Ah. mais Sa Thiès en tant que mbër mun nañ ne yàgg na ci yàggoo ci ngay xale ngay xale expérience war na am ci yow tey ngeen bëri moment bi nga bàyyee la na moo eh, problème xamala ko ci yéen dégg nga gis na fang ngeen bañ koo wax parce que bëggoo leen ko leen mere di ko ci noonu la ñuy dëkki foog ñu jël benn benn benn décision wala benn diggante ba ma ko daane ak bu ma jógee di dem sama yoon image bi war na war na war na ci image bi mag bi ngi foofu dafa wane ni fii kii kat ab bi def na ko lan moo yow gis nga ko bi ngay dem gis nga ko. dama ne man wóor na ma yàlla ñu daanu. yow leer na leen daanu bi ngay dem. mais biñ la woowaatee ne la kaay bëriwaat. xam nga arbitre bi kii daal def na gàllankoor pour ma noonu kaay bëriwaat ma ne a ah bu ci mënta de. ah loolu nga ko wax. wallaahi ko ci mënta am yow parce que loolu la ma yoon may. léegi fi ngeen bëree kon boobu bàyyi naa pare naa ci làmb ji. boobu da ngaa def lu la sax. sonnuma taayiwuma su ma ko bu doole ëpp ma la moo tax may ko loolu sax. dégg li ma la du kàdda may loolu parce que ñun ñëpp dañu woon bu sama tànk daf daal dama doon woon ni Sénégalais yi nañu wax loo xamante ni xamal nañ ko nit mais ça am na booy toll wër mbaar bi ba mbaar moom nga jàpp na tey yéegale ko mu jeex. may ku daanu ku ku noo koy yéegalee tey waaw da nga ko bëgg rek tey wax na benn affaire na toon tey ma xoj ko foofu di ko dóor léegi naa ko dóor fu mu ko wut dóor ba ma ko bësul ba ma ko bësee ba mu boo xoolee xàcc naa mais xam naa ne daan na mën a ma bàyyi ba ma a ah, man moom xam naa daanu na. léegi yow après drapeau bi Reug Reug yóbbu na. ah loolu moom wóoruma li ma intéressé mooy ma pare dem naa ci benn télé li ma bëggoon a xool xool naa ko ba mu amee ci laa jug sama def sama yoon. mais dégg nga nga def sa jees neer bu ne mu wut dem télé. loolu ça n'a rien à voir ak li ma lay wax xam nga tey nga daan waxuma la xam ne yaa daan. daa ko moom sax di sonn ay wax waxi leneen. maanaam ko recours bi dugg na bi ni ngeen recours. ah bu la séentee gore na man damaa jàpp waruma def recours. mais bindoo recours. non ñoom ñoo ko gérer maa boo ko gérer ak kilifa yi. ah yow waroo waaw ba man waruma ko ñoom CNG am na erreur de arbitrage yoo xamante ne bu amee ñoom nañ dimbala arbitre bi parce que tamit nañu ko ñu dëgg yow la ñuy dagg yaay taal ñu dagg la nangu yaay def la war a def ñu dagg la aj la d'accord naa ko mais bu arbitre dafay erreur dañoo war a coppari ci xaalis arbitre bi dem def ñëw dugal a kuur mais war laal sa xaalis parce que loolu mooy tooñ la ba pare jël sa xaalis ne la ci nga amee ndam. maanaam arbitre dañoo war a may sanction comme ni ko ñëpp di amee. arbitre yi dañ leen a war a fay lu jar wax laa lay wax dañoo war a am cachet yu baax ba tax na kenn ku ci nekk boo amee tey benn problème wala torof torof bi ñu jël sa xaalis di ko ci def. bañ laa bañ laa sonal ci dara. Sadio Thiès gars yi dañuy naan da ngay bëri erreur da ngay bëri erreur Sadio nga ne daf lay erreur ci làmb ji wala. defuma benn erreur kon defuma benn erreur. maanaam li nga bëri teg ko ci heure ci temps ci axe. dama ko doon ma daa ma làq bëri dama ko doon wante ko boo yeggee fu sori loolu dong la. Maodo bu tibbee nga sotti. dajale na samay taat ban mbër la ko mos a def mu échec. bëriwul de wala géej na. non non dama ne ban mbër la ko def mu échec. géej na. géej na waaw ok beneen bi ci des un mieux dañoo toog di waxtaan ci benn kii mu ne li li li Moussa Ndoye am moom bu ko amee leneen la ko def moom li mu am moo dàq Moussa Ndoye. moom li mu moom ñaar la am. ñaar ban ak ban. mooy gauche droite. mais <laughs> gars yi de nañ daalaan gànnaar. le fait que mu la foofu. non dara man li yàlla may may na ma man lu amul lay wuti. mais démb ñaar amul lamb laa lu ma amul lay wuti. mais liggéey nga am doole moom gis nga ci moom doole par rapport ak naan dafa diis dafa diis. Sa daal laa xam boppam daal man xam naa sama bopp am naa doole pire et dire. am na souplesse raxuma ko naanoo dara lépp naturel. si naturel waaye nag xëy na ci un mois un mois et demi wala loolu moom man ñëw bu man sama ah combat bu mën a bëri rek su ma naturel man même bu ma dama koy jël ki ma moom. d'accord léegi ban dof ngay jël. ah ban dof nga war a jël. aw ma benn dof bu may jël. amoo benn dof damay noppalu déglu sumay kilifa. amoo ko fi am a jël. dama koy rey jëlu ko dama koy loolu ay mbokkam duñ ko nangu de. galaaw ñaar ko gën a dof. moom moo la a dof. kon tey ngaa moytu dof boobu. dama koy faj na mool. ay mbokk da ngaa yor garab boo faj yor naa garab eh loolu du ma de. Ah, la. <laughs> kon xam nga ne sama gaayen la. sa gaayen la te sama fils la Sa Thiès ak dof bi. waaw ah, dëkk fu dof bi dëkk. dof bi est ce que dëkkee <laughs> na bu dëkk Pikine. bu ah. gàtt am na bu dëkk Mbour. kon ñaari dof yooyu nga war a jël. ñaari dof yooyu mais bu bi daa am fii combat. moom sama waaw sama nekku ci. Balla Gaye jël nañ combat Karaka jël combat Eumeu Sène. waaw jël combat Boy Niang. waaw mais waa dof bi bëri fi combat boobu. waaw mais instant bii am na ñaari dof mënuñoo daje war a daje rek nga bëgg a ñëw jël nit ñi ne passé yooyu nag. dama ne jël na ci famille maanaam ñoom dañ ne famille la. mu jël ñaar ñu bokk presque ndey jël sët. waaye ban dof moo la gën a intéressé waxal rek. roi des moo ma intéressé. Ah, boo moo la gën a intéressé. waaw bëgg a teel a bàyyi ki ca muur nag. daal li ko jëm bàyyiwuma kenn ostre mënoo tëb bëri bëri benn combat waaw ah. dem doon doon droit des arènes di ko bëgg naa daaj ñëpp ñi des ci kaw sama carrière instant bi daal roi bi nga visé ah, laa bëgg ndax la bëgg na moom moo doon laa gën a yërëm na moom <laughs> te yaa ngi ci biir non parce que mbër boo laaj sa ëllëg mooy roi des arènes waaw mais roi des arènes kan ngay daan doon ko ki ko doon ngay ki ko doon ngay daan Modou Lo ki nga xamante ne mooy Boy Niang la revanche ñaar ñooñu ak fay samp ndënd su ma yoon nekku ci première gare ah sa yoon na ci nekk nag non non ma non man mun naa dem sama yoon ça n'a rien à voir ma toog ci télé wala média yi wala audio yi di wax ah da ngay toog xaar dinaa ah li ma bëgg am ci làmb naa ko mu soobee yàlla. yaa koy liggéey. waaw maa koy maa koy sabablu yàlla ma koy may ma sabablu. kenn du la utal yoon. wu ma ko kon fi ma jaar yëpp ñu waxante dëgg ki ma bëri nii daan ko nii su ko daane ki nga bëri nii daan ko kan la ah, su ma bëri nii daan ko nii. kan la. nekkul ci sama niveau kaw fii teewu ma kaw benn yoon su ko daanee dañ naa moroom moom la daan ñu dëgg. mu bëree kay da ngay bëri ay Bombardier Gris Bordeaux Modou Lô Tapha Tine Bombardier parce que ay monsieur ñoom ñoo fi nekk ñoo xamante ni kenn du naataable ñoom ñoo la sut ci làmb. mais saa euh, démb coow li ci géew bi après nga dàqee pare coow li lan la woon leeralal loo tuuti. loolu moom coow làmb la rek ñu ànd parce que. lu Balla def ah, gis ngeen ko defu dara. defu dara. Balla lu mu def wax rek la ma war a wax ma dégg li ma war a jëfe li war a jëfe maanaam lim dugg ci géew bi moo indi coow la Balla Gaye loolu nga ko yàq tooñ ko loolu nga ko yàq rek tooñ ko dafa weex dunk nag da ngeen wàññi tuuti nag seen làmmiñ ci moom ñan la yéen yéen guy wala yéen daqaar yéen yéen daqaar yéen saf ngeen torop joñu cër waay waaw waaw ñë parce que laa ko sañ a wax yéen a ko def parce que xam nga damay bañ ñu jaaj moo dugg ci géew bi xam nga moo andi problème yi loolu laay bañ Euh, te lambul da da doon ñëw pour soutenir. li ko intéressé intéressé na ko mooy rakam. Ah. bokk ñu woon Ikiri léegi ñoo bokk Ikiri. mais noo gisee affaire yi laa la wax yow ko jàngee li fa xew. li fa xew daal lu mën a xew ak quelquefois ak lu mën a xew a xaar admissif amuñu benn problème bu fa am réeroo la mi kaaw rek rek kaaw Sa Thiès ñoom ñaar ñëpp. doom doomu Sénégal lañu ñii ci Reug Reug bi ci Sa Thiès kilomètre hmm. gaaj yàlla may na ma ndam may na ko beneen ndam looy wax Reug Reug ko ñaanal aussi tam yàlla suñu yaram. mais Khadim Ndiaye loo koy wax. Aouda du roy kaay moom. du kon léegi xaj bi nag. ah mu ngi noonu. ah. ñun ñëpp dañuy am i doom am na ñu fi am jabar sama papa man ma romb ko ñu jël teram ek ci dara ba teg turu xaj ñaanoo ko yàlla ñaanoo ma ko am na wax yoo xamante ne ci seet doomam bu ci seetul yàlla. mag mag mag nag buur la. mag lu mu def yàlla baal ko. mais nag yàlla ci mag bu wooyee <laughs> dafa wooyee de góor dafa wooyee de nga bëgg a wax. billaahi wallaahi lay waatal boo jëloon fukki mbër ne leen ndax bëgg ngeen xaarim Ndiaye jur ci façon de wala façon de est-ce que ni ko daa rek comme ni ko liiru di defee euh, c'est pas même chose eh bër daa dégg français de c'est pas même chose bu leen bu leen bu leen naataamale liiru ba muy léegi ah. mu ngi géejawaay te rakkam yi ba ñuy jug ba di jàppale ba ci tey jii ñu ne fi ñëwaat ñaata mooy ñëw nekk caare. bëri na. li muy defal kii la mënatu ko defal keneen. ah daa ma xaaj ak dama lay laaj it. loolu moom leeru ma sax. leer na la. leeru non dama ne leer na la. <laughs> bu fekkente dafa ne magum caare ah. jël ay njabootu yu uuf nag. mu yox waxi loolu nga koy conseillé yow waxal waxi nit kenn naw loolu ci àdduna. dul say waxi say xaj nag ak say mbaam boo ko lekkee yow la boo ko lekku yow la mais ngala suurul say njaboot bu ñuy romb ñaan leen seen papa lekkatu xaj la buñ nga waxoon sa papa du la neex bu nangu ñu koy wax sa doom man loolu laa conseil di la ko wax fexel ba lépp nga rafetal ko yow yaay magum caaro yi jëlal say doom yëpp uuf leen comme ni ko Max Margan defee conseil boobu laa am lu ma lay wax bu la neexee baax na bu la naqaree yaa jërëjëf maa ngi lay jaajëfal di la kontaan.